asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk te dañu ñëw rek jox leen actualité euh, européen de manière générale ak actualité gaynde yi donc surtout sen mercato dañu ñëw si vidéo bi andi leen ci ay leer mais avant ça franchement damay remercier Abdoulaye Niakhate Ndiaye bi nekk 3 mom moom may bu rafet bi franchement makay wax un grand merci yéen ngay gis ñu ngi koy convoqué équipe nationale du Sénégal nekk benn jour bu xamante jaar na Bastia daaw l'année dernière def saison bu excellent jaar na Olympique Lyonnais donc euh, fi ci réew mi ñeen Dakar et tout donc euh, il y a de cela deux ans si ak émission mu garder colère bi euh, fu ma rek ak man donc du coup mu jox un grand merci de ñaanal je euh, donc Inshallah, nous bu mon frère mbokk yi ñëw rek jox actualité actualité dama am envie Paul Pogba voilà devant la justice le noir. donc le 18 janvier donc en espérant que ay avocat wax lu leer teg lu xam nga donc andi ay dossiers yu bax bu ko defee ñu gisaat Pogba ci terrain parce que nam nañ Pogba surtout si ma Juventus ak numéro 10 bi ma ko gisoon man dama nam Pogba franchement c'est des jours yu xamantene voilà euh di leen ci terrain dal pour man lu neex la du côté de Real Madrid Ancelotti ak Estefam dañu jël décision bu fort décision bi ñu jël moy que après euh, Modric reté avant ça Vinicius reté na Rodrigo reté dañu jël décision bëgg jël penalty yi jox ko ki di Bellingham parce que li ñu reté penalty motax tax à voir ndax loolu dinañ ko léegi si terrain ou pas mais selon tasko xiba yi nekk foofu ca Espagne ñoo ngi xamal ne Bellingham légui lañu choisir pour que muy tirer penalty yu euh, Real Madrid du côté de Barcelone wa Barcelone gis ngeen sank rek euh voilà dañ leen dóor par Antwerp en Ligue des Champions euh, selon nak ay tasko xiba dañu bëgg jënd milieu terrain milieu terrain bi ñu waxoon nag euh, temps il passe waxoon nañ 3 milieu terrain demoon nañ ba wax ni priorité bi c'est Onana Onana bi nekk du côté de Everton mënoon jouer sax Sénégal malheureusement mu dem du côté de Belgique maintenant nak selon tasko xiba batay mo ngi xamale Lo Celso mooy priorité priorité bu Xavi le seul chose nag moo nekk du côté de Tottenham sax dootu te dina ko Pape Matar Sarr sax moo ko xañ euh, place franchement tey lañ ko am selon nag euh, beneen taskatu xibaar bu nekk fële ci Arabie Saoudite ñoo ngi xamle ne euh, lii di Shabab Shabab dafa bëgg kii di Vardy Vardy ne bu ñëwee foofu ça c'est comme si dañoo bëgg a jaay kii di Habib Diallo ñoo ngi doon wax nak Lyon oh, Marseille Lille mais man gaw moko vu que euh, janvier bi euh, bo si jëndee jour donc ko utiliser vu que janvier bi jour bi mën na dem Coupe d'Afrique xana kañ Aliou Cissé bañ convoqué Habib Diallo bu boobaa Habib Diallo mën a def du côté de euh, Ligue 1 mu dem fa def fa retour donc xam leen ni dal li di Vardy bëgg nañ bëgg ki di bëgg nak ko Shabab donc mbokk yi Greenwood wa Barcelone ñu ko bëgg mu nekk Getafe xam ngeen Greenwood bu baax baax xam nga donc nekk Man City et tout donc cette année nak début saison bu baax

jamono bi nag donc ñu ngi xamale ne mën na remplacer euh, donc entraîneur bi di Tenak du côté de Manchester United avec après que Manchester United qualifié sax Europa League euh, donc euh, ñu fekk lañ seen dëkk Manchester United Bern dóor leen ba tey ay information yoo xam nañ ko jox mais cette fois ci dañuy laal suñu Sénégalais un peu nekk Malang Sarr du côté de Besiktas parce que Malang Sarr boobu léegi joué du côté de Chelsea donc bokul sax ci banc bi et tout bokul ci plan yu yu yu Pochettino Pochettino dama woon na sa war comme ka Malang pour dire que ne voilà échec du côté de Monaco gis nañ wa Besiktas ñu ne dañuy ñuy tax ay joueurs la donc comme défenseur ñu donc Vincent Aboubacar lu nekk la def pour le remplacer nag jëmono bi ñu ngi wax ak euh, agent bu bu ki di Malang pour andi que mu dem du côté de championnat Turquie ñu koy souhaiter bonne chance franchement. euh tey information sénégalais Peuple gay, très convoité manam Nottingham moko bëgg Fulham Brentford ak Burnley man si équipe bi ma gis ni pour man voilà à la place de Pape Gueye ak ay ak ay entourage toog leen ngeen xaar man ngeen am lu gën li ngeen am ni ba boo ça veut dire que man nga am c'est pas moi sais Tottenham nga am c'est pas moi ben Liverpool mën nga am fait un très bon coupe d'Afrique bu baax defal deuxième partie saison bu excellent et et voilà bu la neexee nga dem fu la neex et que waa Marseille sax dañ a prolonger donc Pape Pape Gueye très convoité xam naa ne di ngeen dégg yeneen équipe waa Fulham defoon nañ benn ko waaw waaw waaw Le ba ñu defaat beneen offre pour am Arouna Sangate à noter que rek Arouna Sangate doon euh, euh, bu baax nekk défenseur bu baax a baax ku ñu waroon a bàyyi xel Ronaldo l'athlète le plus recherché sur Google Madame, moi, sportif je suis 7 sur Google Tapez, ku que sur Ronaldo Ronaldo donc ça montre encore une fois deux choses football moi sport bu ñu gën monde sport bi suis mais Cristiano Ronaldo c'est un modèle pour nous. Cristiano Ronaldo dépasse même le football Dès que nous avons recherché sur 25 dernières années selon Google c'est lui Cristiano Ronaldo Bijoué récemment a li plus de 1200 matchs en professionnel c'est extraordinaire les gars donc je yi que je ay xibaar je pense franchement pense que partage pense Mais je pense que euh, peut-être que voilà vidéo pour le remplacer pourquoi pas pour moi, c'est compliqué gars pour être honnête ce sera hyper compliqué que remplacer que mais pour moi euh, si sama xel je pense que Aliou Cissé qui bi passé non la que loolu les ñëw jël teg fa défenseur yéegal yaata ci milieu terrain bi et mu pare maintenant nag boo amee Soumaré comme surprise dem naa alhamdulilah quoi alhamdulilah wax man gëw ko mais alhamdulilah laay wax parce que on a perdu beaucoup de joueurs donc boo mënee am Soumaré l'opportunité est là pour mu dem Coupe d'Afrique pourquoi pas laay wax mais est-ce que Soumaré loolu dans sa tête il se dit est-ce que du ma toog Séville donc loolu yëpp da ngeen koy euh, prendre en compte donc mbokk yi li mu nekkoon xibaar yi remercier leen bu baax a baax yéen ñi xamante ne